mbokk mi di leerlu ñi nga xam ne dañuy nekk bitim réew di liggéey ci euh, kër yi nga xam ne ay màggati tubaab ñoo nekk moo xam ñooñu ay góor lañu su ko defee ñu jël la yow góor gi nga dem di leen toppatoo wala muy ay meer tubaab yu jigéen nga dem foofa di leen di leen toppatoo soxna si laaj nee na bokk na ca toppatoo ba léeg-léeg bu faatoo wala mu sangu wala mu def na nga yow daal yaa koy yaa koy solal yaa koy solal yére yi di ko def nangam yàlla daal moo xam liggéey ba ak la ca aju liggéey boobu de waroom xam-xam yu bari dañ ne taamuwuñ ko ci ab jullit mu di ko defal ay yéefar bu fekkee ñooñee ay jullit lañu mooy màggaat ya ñu ne su boobaa loola ayut waaye bu fekkee ñooñee nag dañoo nekkul ay jullit yow jullit bi nga leen di ko def loolu dafa xaw nuru wàccee sa bopp maanaam dadul ab sag daal te lislaam bu sañoon a ah, du ñàkk ab sag ci kanamu ay yéefar waaw du ñàkk ab sag ci kanamu ay yéefar maanaam daal ay yéefar duñ duñ nekk ay duñ duñ duñu duñ duñu maa yow jullit bi nga dem ci ba ci ay yéefar nga wàcce fa sa bopp ndax liggéey yu mel noonu même tubaab yooyu seen doom yi sax dañ koy seexlu maanaam duñ duñ ko nangoo def seen doom te ñoom ñoo ko def ndax kenn du soxla si seexlu si waaye ñoom jàpp nañ ne loolu toroxtaane la daal liggéey boo daal dafa wàcce sa bopp ak nangam nangam nangam ba ci ñun ñii sax ba ci ñi yàlla dogal ne moom la ñuy liggéeyee daanaka duñ sawar ci di ko wax duñ ñëw Sénégal di ko wax daa man kat nangam la ni commerçant bi naan man damay liggéey ci usine ba nangam nangam wala damay wër di jaay moom du mën a ñëw Sénégal toog ci biir ñu ko respecté lool mu naan man kat damay nekk di sang ay tubaab buñ demee man ma leen loolu du ko du ko mën a wax ndax loolu xam ne ne xaw naa kii tuuti ndax maanaam néexut a nettali noonu nga xam ne yow xam nga ne lii kat sa dignité da ciy xaw a kii baram nga di ko defal ay yéefar moo tax borom xama yu bari ñu ne loolu dëgganut ñu ne loolu am nañu nag ñu ne loolu dañ ko dañ koo sib Euh, waxalaa kulin la ca nekk daal manqué ndax ki koy defit nag xëy na bëgg alal ñëw na ba Europe liggéey jafe na euh, tax xëy na euh, mën naa am fii dana fi am fay bu baax xëy na xëy na moo tax waaye ku sañoon doo ko def ku sañoon ko xam ku amoon pexe moom doo jege taamu di ko def wala boo koy def nga di defal say mbokki julit di ko defal say mbokki jullit ndax seen seen mbokk yeleen fa bàyyi ñoom mën nañ ko de waaye dañ ko dul def dañu bëgg fay fay xaalis keneen wuutu leen ci ndax jàpp nañ xaw naa am tuuti ak salte wala naa nga yàlla xam bëgguma cee wax dara ña ca nekk defe ne euh, ñoom lañ jublu atta yi dañuy wax rek d'une manière d'une manière générale ki yàlla dogal amul liggéey te gis na foofa liggéey baax te man caa jàpp ayut mu jàpp ca ba yàlla dogal andi leneen rek waxalaa kullin moo demee ci borom xam-xam yi dañuy wax ne bépp liggéey boo xam ne liggéeyu sa dignité da cee demaale wala liggéey bu xaw a toroxtaane tuuti dëggunu ci ab jullit mu da ko defal ñoo xam ne duñu ay jullit wallahu aalam ba mu des nag lu jëm ci wàllu faj te nag daa jëm ci wàllu faj loolu moom ay moo xam ay màggat ngay màggat tubaab ngay faj wala a faj waaye ci wàllu faj daal la jëm nga xam ne moom métier mu am dignité la incha allah loola ay allahu alam